mbokki Kaolack nangaan damaa jógee Dakar ñëw Kaolack gis gouvernance nañ ko def ñu ko drapeau vert zone rouge suñ drapeau ñun waa Séné ñun Sénégal may doomu Kaolack nag nee naa la def naa def lu baax nag kenn du ko wax amul fenn fàllu kebe Kébé Mballo gis naa li nga def ci Kaolack ceg-ceg yi nga jël may ko sa yëg nañ ko ñi nga utal xëy yëg nañ ko li ngay def ci social ci malade yi yëg nañ ko li ngay def social ci nit ñi yëg nañ ko yëg nañ lépp président AIC Saloum Fallou Kébé nee naa la jikkoy sëñ Fàllu nga yor borom dindeeg sàmm Mbàkke Buso rek dafa doy moom nga doy loo nee naa lu baax ba doon taxa a doy ku jël timis jur ngay ju liggéey Fàllu Kebe yëg naa li ngay def man péex artiste comédien néew ma fi woon maa ngi woon Ndakaaru nag mais ñëw naa nag lépp lu baax looy def naa ko filmé naa ko wane naa ko def lu baax ne kenn du ko wax amul fenn Fàllu Kebe lii laa bëgg ci Kaolack li mooy tekki ci réew tekki ci réew du étage du oto du dara xam nga lan la lu jeunes nga taxaw ci loolay tekki ci réew yow dundee woo Kaolack da ngay dundal Kaolack Fàllu Kebe man ko wax ragal pété day xañe Fallou Kébé yàlla sa jàmm yàgg yàlla sa jàmm yàpp Kébé Mballo